élégance ci ci mais yow mais mais yow APR nga nekkoon daan jàppale APR fi Thiès def fi lu bari. Mhm. jékki-jékki def Ablaye Sylla lan la lu motivé wala lan mu la la Ablaye woon ba yow nga jóge APR nga fa nga nekkoon tey loo am tey gàtt APR dem ci dem ci benn Sénégal. très bien li nga ma sawar naa si tontu parce que déjà man APR laa nekkoon te fi may waxee nii man dama ba APR. lii lii di APR lii di Pastef man ñaar yooyu bëggatuma leen sax. mais mais mais ah, ah. mais Isma. bu dem ba ni Isma Mbow. APR la ñu xamee. bu ñu dem ba ni Isma Mbow. Ah. Hmm. mu am tey c'est la lan la ba tey gën APR nga xam ne tey lu am tey tey ma gis ma gis yenn ci yoo xamante ni APR mi ngi ko doon doxalee ci xëy na peut-être loo xamante ne man neexuma man nee naa la bëgguma kuy euh, kii euh, nu mu tuddee sax nan laa ko mën tuddee ñi ko olof di waxee jël nit di ko sës ba ci miir ba wala di ko xooxatal xaw ma man loolu bëgg ma ko koy def ci doomu aadama damaa bëgg bu ñu nee Sénégal dëkku jàmm la dëkku teraanga la nañ dox ci jàmm di wax ci jàmm mais am na yu bari yoo xamante ne xëy na peut-être tey nekkoon fii Thiès jàpp ne ñoom ñooy APR li tax ñu bàyyi APR ñun dem ci Abdoulaye Sylla dañ leen wan a wan ñoom dañoo APR ñun ñooy APR dañ leen bëgg wan ñun ñoo nekkoon ci APR doon liggéey sur la base mais du ñoom parce que il est temps aussi tamit ñu changer ay leadership guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñëpp topp ñu yaakaar ñu ñun boo sama buntu kër man boo ñëwee tey jii nii man teraanga bu ma mën ci àdduna ak nu ma mën a mel ci àdduna man du ma soppeeku du tax ma soppeeku su ma waree toog sama buntu kër ataaya ak samay xarit man may toog ataaya su ma waree dem terrain fu bëri ak samay xarit loolu du ma si mais tey jii nii koo fi fal nga gis arrogance bu nekk ci moom te après lu leen yàqule ak lu leen nit ñi bàyyi loolu loolu loolu tax ñu bàyyi leen ñu nekkoon ci jàpp ni ñoom ñoo fi nekkoon di bum di bum yaakaar ni kat ñoom ñoom moom Thiès moo tax ñi bàyyi seen seen arrogance bari na parce que fi mu toll nii xam nga non xam nga xam nga xam moom bari na Abdoulaye Dieye bari na Massaly mhm. ah ba bari bari na bari ñu ngi mhm. ñu ngi APR mhm. daan doxal nga ànd ak liggéey ak ñoom lañ la def dañ laa xokkatal waaye exactement lan la def ba tey ba nga gën APR dem dem fekkee ah, Abdoulaye Sylla non non du xokkatal du dara damaa jàpp ne ñu man Isma ñoom la ñu nekk man maa leen ko def kon donc ñoom loolu lañu ko war naa ko mën a nekk te ci yoon boobu laa ne te ci yoon boobu jaar nekkuma fi nag nekk mu fi di xas benn kenn wala di wax kenn lenn parce que dama dafa am benn Ablaye Ablaye Sylla dañu ko déglu ci ci ci ci ci ay kàddu yu bari yu mu wax mu mu am lu ñu jàngal léegi donc en management politique ci ci communication bu solo boo xamante ni aussi daa commencé ñëw ci ñun muy ni dañoo war a dépasser politique xasse dañoo war a dépasser politique saagante dañoo war a dépasser politique dóorante élection yi di nga gis ñaari parti ñoo xamante ni kat carrément lu jarul ñu reyante ci élection yi nii te doo ci dégg ABS waaye dama leen di wax benn affaire bu leen ABS déranger wala ABS sonal leen ba ñëw naa ñu ngi attaqué ABS wala di ku leen laal laal laal parce que pare nañ ci bépp mooy pare nañ ci lépp moo tax nag ñun ren dañoo pare pour au moins le 17 incha allah rabi yàlla jox ñu ñoom jox ñu majorité ñu gagné